yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na forum international des entreprises francophones li nga xam ne moo ko tax a mooy nag jéem a bosse entreprise yi ak PME francophone yi ba tey ci bi moom président Mbagnick Diop jiite kuréel gii di MEDES nee na forum de Dakar bii nag wane na nag taxawaayu MEDES ci biir communauté des entreprises francophones moom président Mbagnick Diop daat nay wax ne Covid 19 bi ak guerre Ukraine bi loole nag tax na état bu Sénégal daal di jubbantiwaat politique publique am jëm ci wàllum développement daal di koy accès nag ci lu soxal wàllum jëm ci wàllum industrie ñi nga ñoom nag seen taxawaay ci entreprise yi am na solo ndax ñoo ngi leen di jàppale bu baax a baax yéene kaay gi di réew mi ñu xëy fekk fa njiitul groupement patronat francophone daat nay wax ne ñoom seen objectif mooy daal di def francophonie une zone d'essence économique yéene kaay gi la témoin wax ci wàllum FMI bi nga xam ne ñoom daat nañuy kontaan ci situation économique nationale du Sénégal yéenekaay gi di Vox Populi nee na ñi nga xam ne ñuy waa FMI ñoom nag nee nañu économie bu réewum Sénégal jamono ji good fine yéenekaay gi di Grand Panel moom nag daat nay wax ni ñi nga xam ne ñuy waa FMI bu ñu waxante dëgg maanaam cere Macky Sall ji dañ seen sotti suufa ndax nee na subvention yi nga xam ne moom la Macky Sall nekke suba ngoon guddeeg bëccëg loole nag dafa am yemukaay maanaam dafa am ay limite yéenekaay gi na lu jëm ci commerçant yoo xam ne convoqué nañ leen ñi nga ne ñooy contrôleurs yi ñoo ngi woon ci Ndakaaru ci Pikine ca Géejawaay ca Kër Massar ak ci Rufisque yéene kaay gi du source Omar Bun Xatab Silla mi nga xam ne ay jamono moo jiite kër gi di Dem Dikk journal bi nee ay passeport diplomatique la ko jox mu jox ko njabootam boo xonam sedd nee sax doomam bi nga xam ne ñaari at rek am wutal nañ ko passeport diplomatique yéene kaay gi de la témoin ñu xëy fekk fa Aminata Touré moom kenn wurtu nango jëm ci ay jàmmarloo ndax ci sous na loo xamante ni xew na fi te nag lu soxal wàllum ñetteelu mandat moo tax mu daal di am yéen gi di réew mi ko ñu muy jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi nee na lu jëm ci wàllum port ko commencé Sénégal lu toll ci junni bracelet yoo xam ne disponible na Le Soleil nee na am yoo xam ne commandé nañu ko waaye nag attakat yi ñoom ñooy xoola kan la ñuy takkal bracelet li nga xam ne moo ko tax a jóg mooy wàññi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kasu yi yéen kaay ko di réew mi ko dajee ak xëy duñu xibaar naan ñu garde corps Ousmane Sonko yi démb lañ leen atte ci diwaanu Mbour procureur nee na nañu leen tëj lu toll ci ñaari ati kaso waaye benn at ba la ñuy tëdd loole la procureur bëgg nee na tamit Omar Dione mi nga xam ne APR la bokk ñu tëj ko lu toll si juróom benn weeri kaso xam ne daf koy tëdd yéene kaay gi nee na délibération gi ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent ci weeru novembre yéene kaay gi dalay si ko nee na njombe gu doy waar musiba moo am ca diwaanu Dalifort nee na benn xale bu jigéen bu tudd Maymuuna Maymuuna moomee nag ay waajuram ñoo ko bëggoon a jël bëgg koo maye par force nee ma mariage forcé xale bu jigéen naan li ñuy wax bay tox daa di ñàkk bakkanam dafa xaro yéen a kaay gi di réew mi ko di jeexay génn ñu réew yóbbu ñu ca réew mu àmbaloo ca Guinée Bissau journal bi nee na cour suprême daan na fay supprimer lu ci vingt-huit partis politiques yoo xam ne maanaam jëmuñu fenn amul lenn luy firndeel nay parti politique la ñu moo tax ñu daal leen fay supprimer yéen a kaay gi di libération xibaar naan ñu mbër mii di Saloum musiba ma ab clientam la dafa ñëwoon jënd li nga xam ne mooy drogue mbër mi di Saloum Saloum nag li ñu koy toppee mooy yëngatu ci lu soxal wàllum trafic de drogue wàllum viol ak wàllum coup et blessure volontaire bi nee na bii mooy ñeenteelu yoon boo xam ne depuis 2014 ba léegi ñoo ngi topp Saloum Saloum ci lu jëm ci wàllum drogue waaye nag mbir mi dafa gën a doy waar ndax xale bu jigéen bu ñëwoon doon jënd ci yamba moom la Saloum Saloum sëgg si ko am di ko violé ko ba maara di tale yéene kaay gi nag na duwaan ca diwaanu Kaolack jàpp na fa lu